ñu ci jamono élection sa kess kees way sa kess kër ma sa sa kess moy mbeur mo ne dafa am ñaari kër tay ci lamb si ba Dakar nag bu la nexé nga bàkkoo ko mbeur yi fi nek fi yépp tay ji ni ah xana ëmma sen ma nga xam mo moom da nga kaa am na ñaari kër waaw waye yow mi ya njëkk am ñaari kër saa kees kër sa sa kess golf waaye tey ñu bëgg a xam tey Sa tey jii nii ci politique bi fi ñu toll nii tey Sa kan la àndal tey ci politique bi. man daal ki ma mën a àndal mooy ki daal sama xel ba tax na su ma amee yaakaar ba foto ko sama carte mu yor réew mi ci jàmm yor réew mi ci déggu ak nit ñi parce mooy li may wax rek fukki nit jiite leen yomb ndax bokkuñu xalaat te bokkuñu jikko te guddi yi bëri na kenn ku ci nekk intérêt lay xool. kon tamit ku ko ci mun a jël da ko war a jël mais li lay ñaan mooy jàmm ji mu jiitu ci lépp lu nit jàmmat nga seet ko xool ndax dëgg la bu dee dëgg la loo ci mën nga taxaw ci réew mi nag boo ko diisalee mu diis boo ko woyofalee mu woyof ndax gouvernement moom yaatu na ñi fa nekk bari nañu kenn ku ci nekk am nga la war li waral postu kay noppal sa bopp la ndax bu ne santé wi kee nga jël ko ministre de la santé nga ne sport nga ne kii ministre de la sport tey kenn ku ci nekk am nu mu yelloo mais nag lépp mën nga ko defar da ngay cof fu nekk rek soo wàccee bu kere ñëwee àggale defante noonu waaw damay dégg ñu ne Sénégal moom xaw ma ligne continue lañ ko xaw ma parce que man dégguma français waaw kon président bu fi ñëw da nga ñëw àggali boo xamee boo amee lan looy yokk nga yokk ci lu baax parce que ñun moom liggéey rek a ñu ñor réew nañ yàlla de billaah wallahi wa taala doo fi dégg dara tàkk na fi doo fi dégg li am na fi doo fi dégg lenn am na fi loolu dañ koy sante yàlla kilifa ak kilifa diini yëpp wax dëgg yàlla. waaw saakees dañoo bëgg xam saakees tey kan la àndal kan la. loolu moom du ma ko fa xalaatuma ko mais dinaa voté moom. kan nga voté. man dinaa voté man man man man man benn man ki ma faraluma jëkkëram man jabaram laa faral. man Marème Faye Sall laay voté sama carte point final. kon buñ ko déggee rek mooy saakees makki sàll lay voté. dama ne Mati soxna Mati Sall waa <laughs> Diouf Marème Faye Sall man mooy son président man nag lu tax ma wax ko du dara yàgg naa ko wax ko man dama gis dégg ay atu yi muy def ci lu rafet loolu moo tax ma nawloo ko. moom non non mosuma mos dara te man jaanuma yàlla sax dund ak moom affaire mos parce que affaire mos affaire intérêt la mën na laa mos a te yàlla kooku seen diggante la mais dama ne lu dara moo tax ma wax billaahi wallaahi wa dafa am benn gox mu mos a romb seen ko seen leen ñoom mu jël ay xéewal di fëgg buntu kër yi leen ko jox di leen ko bettee loolu dafa yombul wax dëgg yàlla guddi ñu toll. acte boobu moo la daane ci moom moo tax nga bëgg a sànnil jëkkëram carte. moom laay sànni man moo amee bàyyi ma. ñun fii am na ci du Fallou dafa nànk am na ci Malick Gakou Aliou Sall la ngi fii yaa may dégg ñun Sénégal jógamaa Sénégal ñun géeyaa fii manqué ñu dara wax dëgg yàlla politicien yëpp a ngi fii man man ba Thiès dama fa am samay nit wax dëgg yàlla ñu may jàppale mais sama carte moom xam naa fa ma koy teg waaw wax man xam nga ko jigéen koy sànni mais bokk ci élection benn yi saa gis nga nag benn côté man gaynde nga yow gaynde nga daanaan nga gis nga boo taxee ci làmb ni ngay kuwee dama bëgg nga kuw rek mu jeex ah affaire bi yomb na saa ah mais Marème Faye Sall du fi falu jëkkër moo fi falu kon gars yi ma wax leen askan wi info point com pour muy leer Iran Ndaw Sa Thiès ñoo bokk ku ñuy sànnil carte <laughs> waxuma ko de askan bi lu leer laa wax man Marème Faye moo ma doy lu leer laa wax point final sama carte nag manam fay mun na ma neex mun na sanil eh, idrissa loolu sa mun na nekk ci man mun na sanil sonko mun na sanil eh, père madi kanya wala keneen ak keneen wax deug yalla mais man dama ne ci politiciens yi taxaw man mom marem fay la la wax bala boog président avec jabaram man jabaram la faram yeug nga ne abla waat ñëw yeug na ko de nga lim wax man dal li ci mëna am dama koy ñaanal yàlla guddal fanam ndax papa ju bax la papa ju jigle ci réew mi te yorna ay ay domam di len teete ci politique man damay ñaan yalla rek ñun ñëpp ñu parce que ñëpp famille pa bi moy seen papa ñu ñëpp taxaw rek doon ben Sénégal képp nga xamanteni mo wara jël ndam ni yalla bind na ko xëccu bi ak lepp mënta ta ñak waye buñu paré lepp ci dalay day te ñoom ñoo ñu xëccoo noonu ñoo bokk ndé ak bay dé wax ci lo xam def ci lo xam fo teudé mo nga ndax ci fekk man duma ci waxal kenn luma xamul mais ñoom ñëpp mun naa jàpp ñoom ñëpp a baax ñoo bokk seen ndey ñoo bokk seen baay politique la li ñu làmb di boolee bu ñu paree nekkaat ci jàmm ñoom noonu la leen politique di boolee bu ñu paree nekkaat ci jàmm ñi ngay tuddoon tey doom di demaleen di dikkalante kon kenn ku ci ne wax ci loo xam man daa wax naa ci li ma xam. yow lii loolu laa ci xam maa ngi ñun ñëpp yàlla guddal seen fan mais Abdoulaye Wade maa ngi koy ñaana yàlla guddal fanam wax dëgg yàlla. sànneel sànneel Marème Faye sa carte lan nga ci xam. Marème maa ngi ñaanal yàlla guddal sa fan. may la wër li ngay def yàlla na la ci yàlla may wér nga continuer ko ba abadan